Lamine kii ñu jàkkaar loolu kan la nuyu naa la. maam Diagne sama xarit. maam Diagne maam Diagne lu muy wut fii. maam Diagne daal saa yi. Ah. février la génnoon rew mi. waaw ñëpp naan liiru fàq na dootul teg tegati tànkam Sénégal. mais daal li maam Diagne affaire la. maam Diagne est de la ilaha illallah. kon tax bi mi naan. Magu Balla mbër mu mag a mag a mag. encadré xale yi magul Lac de Guiers numéro 2. ñu demoon aéroport nag. jëli ji mu wàcc ci mi. waxal ci loolu ndogal yaa koy waxal sa bopp waaw loolu ndogal ga moom ak ndogal la rek cat la waaw waar naka ay mbir la mbir la sant yàlla how are you fine good good how are you xam nga good good good mooy lan xam nga good good wuy ma waaw maa leen sant di leen gërëm mm-hmm. ndax li ngeen def rek geste bi dafa rafet mm-hmm. geste noble la mm-hmm. ngeen yëg ni damay ñëw xam naa ni xam nga yow at Babacar yéen ñëpp yaakaar ngeen du ma ñëwaat ak askan wi mboonoo bi <laughs> maam yàq ngeen sama der ba tàyyi waaye amu problème jéggal naa leen man kilifa laa am na yoo xam dama ko def dépassé naa yooyu uh-huh. comprendre nga waaye nag mbëri yi dem di toog li tax ñuy toog xam nan ko waaw loolu kanam maa ngi nuy waa États-Unis nga ma jóge yëpp di nuyu sama doomu nday jéy seen bi ma jël uh-huh. bi ma jël si di ko gërëm di ko sant ak sama fils Mathia mm-hmm. li am aéroport bi léegi ndogal la cat la waaw mënut a ñàkk pourtant boo ko waxoon duñ ko wax. na waa wax non ñoo cat la cat ay mbir la loolu lépp. cat la ah, waxoon nañ la ko. waa cat la loolu du dara cat la. mbaa du sëñ Samba Ndour la ko wax na wala sëñ Cissé. Balla Gaye di ko gërëm di ko sant ndax moo waroon a ñëw di ñëw empêchement bi comprend nga loolu moo tax heure yi heure yi moo bokkul. Hmm. heure moo bokkul loolu moo tax ah ñoo ngi jégalu bu baax a baax a baax di nuyu waa Amérique gépp du nuyu sama papa ji père Babou. mais liiru ban dégg may ma tuuti père Babou maa ngi koy nuyu baax a baax a baax a baax di ko sant ndax mënu ma ko fay hmm. ndax dalal nit ay Amérique yombul ak jabaram meer ak su fay maa ngi koy gërëm di ko sant di nuyu xale yëpp di ko gërëm per baabu moo taal otoom bu ma ba aéroport comprendre nga bi may ñëw tam waxi nopp xam nga dafa am yoo xam ne su ko nit defee da koy wax su ko nit defee da koy wax dalal nit Amérique yombul ah ah way yombul barki Cheikh Ahmadou Bamba yombul at man mii nekk waaw dalal ma yombul père bi dalal ma ñaata weer ma nekk këram di ma taral di ma sagal comprendre nga at jabaram maa ngi leen di gërëm at rakkam ji papa maam di gërëm di gërëm euh, Baye Fall yu mag yi sama rakk yi sama xarit yi ay afiya ay afiya ay afiya afiya kenn du ma booy boobu daf maa teral li ma. liiru danañ ñëw ci loolu yëpp. non de sol ba ci kaw ba suuf yëpp. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw. dimbali ma bul ma xoolal ji. waaye des na ci ñëw waaw doo def ndànk non non am gis nga dama déglu ma rek dafa la ndànk gis nga nit. su la defalee lu baax da nga koy wax soppi na jikko de maa tey soppi jikko <laughs> maa waroo soppi jikko man ba ma waaye yow dimbali ma man ni ma meloon démb ba tey noonu laa mel ba nga naanee ndox nga soppi non non non waa merci est-ce que xam nga li ma la wax waaye sa yi ngay def afia at Mor Ndiaye sama rak yooyu waa canal fi ñuy liggéey ñoom ñëpp maa leen gërëm di leen sant at Mor Ndiaye kër gi muy fréquenté sama grand yi ñoom ñëpp at euh, nu mu tuddati Baye Fall mag bi Mafal Mafal nga xam ne mooy coiffeur bi mooy booy bi may tooñee. na waaw kooku non kooku suma copain la géejaway la dëkk doomu géejaway la muy Mafal di leen nuyu di leen sant ak Assane at euh, kii euh, booy bi nu mu tudd sama booy ah, non Assane bokkul ak Assane Fall textile Assane Fall la nekk Assane Fall Sénégal <laughs> kii sama benn booy la ngaay la dëkk Amérique la nekk ak ñoom sa Sadeex booy fréquenté place ma Fall yëpp. dinañ ci ñëw ana Ramdan. daan gisuma ko. ah dem nga fa ba ñëw. non gisante wuñu non. lu tax yàlla non dañoo gisante wuñu dañoo. ana Bousse. Boucher gisante na ak moom deux fois xaw ma trois fois. ñaata la la may. lu ma may ci lan. xaalis may loo xaalis ma dala ko wax. waxuma ko dara yow laay laaj dama lay laaj dala ko wax. da lay laaj dara nga tëm naan ma ana Boucher dala ba xam dala may xaalis. Ramadane may loo xaalis. waaye booy bu may yëngal waaye nga wax daal waaye Ramadane ak ay kii may na bàyyi sa affaire yi may def waaye booy bu ma déplané waaye. balaa nga wax non non non bul ma bul ma tàngaloo waaye. non bul tàng bul ma tàngaloo nag. non bul tàng waaw wuy ma pare gu ma de. bul nuyu Gambien sa copain. Gambien Dramé Abdou Dramé ku baax la nuyu euh, nu mu tudd sama waa ji directeur moo njaay moo njaay moo njaay at jabaram at jabaram maa ngi koy nuyu at waa consul ba consul ba consulat bi ñi nga xam ne ñoo fa teewal Sénégal non non lu muy dagg na ko dagg dafa sañ a dagg non non dama lay expliquer dama lay wax xam nga nit soo jógee fii dem ci réewu ja ñëpp bëgg ma aw noon ñëpp bëgg ma aw ma fa noon foo amee noon bëriwul wala noonu dañoo jël vol non may ma tuuti ma njaw consul bi consul bi maa ngi koy gërëm consul bi consul bi maa ngi koy gërëm di ko sant waa mais liiru léegi noon may ma at pend gisee ma nekk ca consul ba doomu day nen ne taal ministre de la jeunesse at Margot ak jëkkëram déglu ma ñu nepp neen ñëpp rek consul ba maa ngi leen di gërëm di neen ñëpp rek euh, Mafal nag soo déggee ma koy tudd di ko tuddaat dafa am place am mooy chaise bi fa la ñuy fréquenté ñun ñëpp mm-hmm. Mafal Baye Fall bu mag bi coiffeur bi maanaam sunu waaja kan Kële Ndiaye. Mor Mor moom laa lay wax Mor Ndiaye mooy doomu ndey Afia ñoom ñoo nekk canal. ko kenn du Mor mooy waaye tamit attention kenn du euh, kenn du kenn du yóbbu. Las Vegas. Las Vegas moo gën moo ci tabaski bi Las Vegas. Las Vegas Las Vegas. Las Vegas Las Vegas évité ñu fa ay tranga bu ne. ok dinañ ñëw dinañ ñëw ci lool yëpp non liiru taxawal dinañ ñëw ci làmb ji. léegi da nga amoon combat. combat bi a jege nga voyage yu États-Unis waaw objectif bu voyage bi lan la woon dem entraîner ji wala dem liggéey. non su ma doon dem liggéey doo ma gisaat su fekkoon damaa jóg pour liggéey doo ma gisaat damaa bëreegul li yàggul matul deux mois trois mois fekk ma sama visa ba mu génne yàgg na gars yi nga téye sa visa toog fii rek euh, di nga ko la nga may revanche doo dem ngir yàlla yéene ma ak ñoom Balla Gaye demal nga génn nga dem entraîner ji. nga dikkaat. xam ne doo seen morom kilifa nga. Mm. man xam li ñu wax dëgg la. dama waroon a bëre billaahi wallaahi damaa waroon a bëre waaye comme nii ba ma war a génn ñu ne euh, revanche dafa jege demal ba ñëw. nga dem fekk fa feebar bi. corona waaye alhamdulilah di ñaanal Sénégal yi fa nekk ñëpp yàlla muccal leen ci coronavirus bi. ak ña fa nekk ñëpp yàlla leen yàlla mu muccal ci coronaas waaye daal. booy li tax ñuy toog Amérique man xam naa ko je connais très bien. mais man dama entraînement yi Babacar foog ñu wax ak ñun ci entraînement yi la demee woon foofu. yaa ngi doon entraîné wala entraîné bi ñu commencé entraîné feer bi ah. commencé déclenché waat ñu tëj saal ma arrêté waaye doon commencé physique. di def di def musculation. non musculation moom wax dëgg yàlla gëj naa ko def. ndax euh, feebar bi mbër mu la wax ma ngi def musculation day duul. waxul dëgg waaw déet non non non c'est vrai euh, saal dañoo tëj. nan foofu déggoo li ma la wax. saal yi ñoo tëj. saal yi tëj. mais ma laaj la benn après rek bi euh, bi nu demee beneen dëkk am na saal yu fa ubbi woon. yow bi ngay dem da ngaa yóbbaale avance su jàmbur wala. avance su jàmbur kan mu la wax loolu waxul dëgg. avance su jàmbur la yóbbu ma avance am moom su ko yóbboon Lamine ma def yooyu mhm. mais liiru bu ñëwaatee maa ngi gërëm sama benn waay bu ñuy liiru waa léegi ma ñëw su ma ñëwee léegi xam nga dem nga wax nga voyage bi ni mu dikkee ak ni nga demeek yooyu mais tey liiru maanaam mbëri doon voyage Amérique di dem di ñëw yaa ngi dégg ñuy gis ñuy indi beneen dundin ak di am beneen yëg-yëg liiru lu mu yëg Amérique ak lan la fa jëlee. barikàlla macha allah daal. Amérique li xale yi dem di toog mbëri. Hmm. ah daraa nga fa man nag fa ma demee baaxul dama tomb feebar bi. waaye naa waaye maa ngi sant yàlla. lijjanti nga ko may na ma. ay nit yu baax yoo xam dem naa ñu teral ma. dégg naa sax da doon liggéey moom. xaw xamu xamaloo ko dara semaine 300000 yooyu bul ma tax a sikaruwaay wuyu ma. yow laay waxal nan nga foofu fara feebar bi corona man non non man liggéeyoo mbër mu la da wax daal day dem Amérique te du liggéey waxul dëgg. mbër mu la mag dañu Amérique te du liggéey mbër ma mbër yi daal kon yaa doon liggéey kan yow yaa ngi doon liggéey xam moom waaw ñaan sitel mm. sitel mooy xam ne ñoo fay dem du liggéey p Balla Gaye mënoo fa dem entraînement la fa yóbbu a at Modou Lo entraînement moo leen fa yóbbu at Reug Reug moo leen fa yóbbu ndax ña fa nekk liggéey waaye kenn ku la wax dafay dem entraînement yóbbu euh, moo ko fa yóbbu day duul waxul dëgg. waaw mënoo bàyyi saaga yi waaye déggoo li mu lax. saaga mënoo koo ba dañuy liggéey dañuy xarmat. liiru awas kan ngay waxal liggéey dañuy sa salaire ñaata la woon. xaw ko no Lamine moo ne ma 300000 la man liggéeyu ma Lamine moo ne ma Lamine moo ne ma 300000 doon fay par semaine. ay gaz nga doon liggéey ma sagal nan seetaan da dañoo gis mu invité la tabaski bi tabaski bi passé nga def nga def mm-hmm. ay vidéo mm-hmm. naan ku ma siis ba wax ba wolofal mm-hmm. maa ngi jéggul ci wolofal bi sax ndax euh, sama yarama tàngoon te ko Sangara mbay Sangara Mbaye waa ngi koy ko sant Sangara Mbaye waaw Xadi euh, Loo doomu euh, jigéenu Waly Seck jigéenu Sangara mbay Loo Ndaam Siré xam na ki may xam na boppam sunu jigéen la ku baax la nekk foofu waaw ci Amérique non comme ni exemple moo gét moo ñu invité tabaski bi man daf ma invité. man daf ma invité. invité guy gi. ay ñoom euh, Abdou Diouf. yee ak Aliou Mané. ñu dem foofu Las Vegas. ñu ba ñuy dem bokkuñu vol bokkuñu fi nekk. voilà waaye après euh, man guy gi suma rakk la. su dee benn fàtte. la li muy def def na ko noppi su ma melul nenn awuma dara maa ngi sant yaan saf naa nit ñi nit ñi bëgg nan ma toj naa Amérique Amérique gépp bëgg teral ma sagal ma. Afia kenn du moom. mais Lamine ba tey ba tey ci Amérique bi. parce que euh, li muy leeral noonu moom daa mel ni nee na dina ko gën a leeral. waaye xam nga Amérique da di. waaw yu gën a lu gën loo xam ne xañ na fii la commencé woon moo waral ñu dem foofu affaire bi demee nii moo tax dama sonn may leen ma après dina leer. mais année oto bi. oto bi incha allah rabi dina ñëw léegi. incha allah jënd nga fa oto waaw alhamdulilah sant yàlla rek non jënduma ko sama nit ñu baaxee ma ko jox rek. mais ay combat na fi ci sa confidence sa lépp Balla Gaye de lekkati na avance su Gris Bordeaux. waaw lekkan euh, desitu hôpital. ku desitu hôpital Gris. Hmm. lu tax nga ne ko desitu hôpital non desitu hôpital mais lu ko ko def. Euh, maa ngi moom a yem. yebe ay desitu hôpital la no ay desitu hôpital ma jaar hôpital. lu ko fa hôpital moom ñëpp a fay jaar. kii moo gën a garaaw kii courant la moo nekk si yaram génnagul de Gris. waaw waaye moom courant moo nekk si yaram bi. yow fii ñëpp a dem hôpital ku feebar. waaye moom la mel courant moo nekk si yaram bi. neen da leen dóor ngeen daal. waaw tey loolu la yaakaar moom moom bëggoon na combat bi loolu la waxoon baax na man maa bëgg a dee muy giñ. bi léegi ba certes yàlla damay dóor Balla Gaye Balla Gaye koy dóor mu daanu kan la ñuy dóor mu daan moom moo nekk day dóor Balla Gaye mu daanu giri waaw waaw loolu la loolu la bëgg de ci kanam la ci kanam raw li bët fan lañ fii ñu taxaw nii fii mooy doomu Faalaay Balde ah ak borom caw sa xiir booy boobu moo garaaw de kan at beneen booy bu fi dëkk beneen booy bu fi dëkk ñaa waaw champion la sa mbokk ma sa mbokk. sa la laa la wax. Boy Niang du sa mbokk la ñëpp samay mbokk la Boy Niang sama doom la. du sa mbokk sama doom la laax ni tegal fa sa baaram sama doom la. lekk na avance su Tapha Tine de. waaw am na combat nag. moom Boy Niang waaw am na combat de. non moom la soxla woon. waaw Balla la soxla woon tappat la bu la soxla dugg ci ay Balla soxla. mais lekk na avance su Tapha Tine. waaw combat la. Tapha la ilaha illallah moo rasulullah la champion la Tapha Tine daanaan la champion combat bu neex la. ñoom ñaar ku dàq xeex. ñoom xeex ku dàq bëre. Euh, non xam nga ma xamal la benn affaire foofu. waaw Tapha mën na bëre. waaw du cuune de. Ah. Tapha Tine. waaw. gu nag bool du cuune de. da ngaa ni ku ko yàgg xam noo dama ko je connais très bien lui. Hmm. je connais très bien. ci ñoom ñaar bu jaxasoo ame non combat bu neex la. Ah. barki Cheikh Ahmadou Bamba combat bu neex la. mbooy ñaar tamit naan kullu faddalin la. waaw bëri bu tàkkusaan mu ne am na ko fi. yow koo ci faral. ah bu ma dugal nag. yow nag dangal ma nga dëkk de gis nga Tafa. waaw bëgg na ma trop. bañ na ma may mbërëm. waaw booy ñaa. sama doom la papam suma grand la. déggool suma grand la mun naa ñi ma yet si la bokk. Mhm. suma grand la. comprendre nga. bu Tapha Tine suma xarit la daf maa bëgg. te man ku ma bëgg ma bëgg la. te yow dégg naa ñoom ñaar ñëpp damay neutre. te yow dégg naa bawol nga dëkk. waaw bawol pire. Sa Thiès Garga taxaw na. yaa ilaha illa ay combat boobu man boobu fi mu combat bi est-ce que taxaw na c'est sûr. nam ah taxawee ëpp na taxawagul de taxawagul. waaw léegi guy ko combat la. gis nga ma xam man géejawaay laa dëkk laajoon nga ma ko ay jamono man lu ma mere mere mere guy gi damay ñaan su bëree rëy mu daan ko jël bu rëy. kon da ngaa mere guy gi bu baax a baax a baax je ko du ma nëbbatu ma ko mere. moom xam na dama ko mere li ma ko mere moom xam na déggoo la wax da ngeen comprendre après. ama seen bombardier. combat bu neex la. revanche revanche la. waaw yii combat bu neex la. Mathieu koo koy jox. non dina am combat ki ndaanaan la. kulub xaar eh, eh, eh, Lamine Tyson deux francs. combat wu dafa taxaw waaye loolu dégg naa ñu koy. la Vox Arena taxawal na ko koo taxawal. Vox Arena structure bu bees la. njaago bi waaw franc njaago. ak séeréer bi Tyson deux borom borom borom pokaar yi. ah, ah euh, euh, booy bi. kan euh, franc njaago bi. Franc am na combat. Ah. waaye eh, kii. Tyson 2 Tyson am na combat. Ah. combat mi dina wuutee combat euh, Franc at kii ba keneen ba bel ba si wuu. bu la waxee waxi Bébé Saloum muy ma. combat non non bu ma. Bébé mag la de. bu euh, bu Fass. Ah. bu la waxee Bébé Saloum waaye dina kii amul jom kii yow bëgg ñu laal ko rek mu daanu fi muy ah kii la soxla. Lagros nee na na day ñëw bëri si waaw dégg naa seetaan naa interview bi. loo loo koy wax la champion la. koo koy jox. mi ngi laaj ci Malick Niang. combat la waaw moom nees tam. ana nees. nees gisuma ah ma nekk Amérique bi yëpp gisuma ko déedéet Balla Diouf. lay tëkku de. ah yem Baye Balla Diouf. Balla bu feebaroon bi tëdd hôpital sama man Baye waata kon Balla Diouf dama ko diggaat Balla Diouf dégg naa am na. Baye ñëw ñëwaat na kay na. waaw ko kon yàlla waaye Baye Mandione. diis na mais na am na ñu may wax boobu sa digganteeg Tafa Gueye numéro 2. waa ñu ko wax bari na. Pape Thialis Faye nee na bëgg na ko. waaw am problème nan ma fay xaalis rek. ma nga bëgg Tafa Gueye. yaa ngi espagnol Cheikh Ahmadou Bamba ma kenn ba ci dof bi dëkk parcelle. kan Fatick dof boobu. Eh, bëgg naa bàyyi ma fi kenn. Eh, eh. Fatick nee na la bëgg. loolu la ah, bëgg na ja ndox mu sedd. moo ah oui moo yeey. nee naa ko nag Barika liiru day ñibbisi mu ne moom xajul foofu. xam nga <laughs> ñibbisi bi. Euh, ñu euh, euh, ñu ñaar ko yëg waaw ñun de xam nga. non non du question ñaar ko yëg. daf moom ci la bokk daf ma bet ndax man mm. waroon naa ñëw bu yàgg waaye su ma vol bi ma jëloon vol bi moo amagul woon léegi mu ñu mujj jënd laal ma billet delta ma ñëwaat. mais jéy seen mi loo koy wax sa waa kii sama doomu ndey la da ko ñaar gudd fan ak wér gu yaram te ma la booy la daa nekk yoon nan ko bàyyi mu dox na dox. mais liiru sa marque daal bi ban kii la ah, nga yóbbante bi. de daal yi yii rek ngeen gis de. xam nga affaire gis na booy boobu. yàlla na xarit la I love sama rakk la sama xar la. I love New York canal ñoom gis nga ma xamal la benn affaire waa place ma faal. ak balaag lan ak waa 116. waa 116. balaag lan waaw da nga may déglu boog. balaag. wan ñu dugal ko wan damay damay fayu de. gis lan jox ma sama kii bi. Black Lives Matter. salaam ma gis nga ma xamal la benn affaire. <laughs> may ma tuuti Lamine. Lamine ma ma xamal la benn affaire Lamine. Euh, Lamine. waaw nan waxante dëgg Lamine su caaxaan jeex a dëgg Lamine ku la defal lu baax nga wax ko Lamine. ak ay dëgg. Lamine waa Amérique man lu ma leen defal 116. palaasu Aliou Seynou paa yi toog foofu yëpp Lamine dañ maa jox ay nga man waa 116 amu lu ma leen fayee. mayuñu ko xaalis maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waa 116 palaasu nag Mafal. Mafal palaasam. ña fay fréquente 98 millions 98 millions nga andi Maane mi. ay place Mafalla liiru 98 millions nga andi. ay waay ngir yàlla bàyyi place Mafalla. Moodu Maane ko wax dafay fréquenté ñëpp ñëpp. ñoom Assane. loolu bëri sal di Ablaye Sall Ablaye Sall sama booy boobu ak Assane sa deex. yéen booy sama booy bi yor extérieur bi booy fu ma jëm ñu yóbbu ma booy ñëpp ñëpp mënu ma lim seen tur après seen tur naa ko am ñoom ñëpp gërëm leen sant leen non doo am tur yi ma daan nga koy wax te bi nga jógee Amérique bu dee déggu ma la non sama yaay feral nga leen sëy mënul sëy sëñ Cissé feral nga leen de feral nga leen de Adja yaay gis nga leen ay saytaan ngeen feral nga waa Sénégal de ah, doo ma leen ma jax fekk àdduna Amérique laa jógee ñoo ma fa nekkoon ma ñëw ñu ne may defal teraanga ñoom nag il faut ma gërëm leen. ah, ah léegi man maa ngi ñëw naa Sénégal. ñibbi si waat na loolu am andaw a jarbaat la andaw suma jarbaat la. Hmm. andaw suma jarbaat la. Alioune Sall wuli am na lu mu wax ah. wuli kay wuli kay dana gàmbi mu ne yow gàmbi nga newoon. waaw su ma ko wax de. dafa soxor téeméer sax. ja waaye moo gën kenn moo gën. moo gën moo yóbbu Vegas teral ñu foofu. Las parce que Cheikh Las Vegas. teral ñu waaye per Babou yàlla na hmm. ko yàlla may gudd fan at wér gu sama papa jooju papaay Balla Gaye 2 mère Assou Faye yaayu Balla Gaye sama yaay. mère Babou de gis naa la fa te ga. fa laa nekkoon këram laa dëkk. këram nga dëkkoon. mais Balla Gaye 2 na daa mel ni mënoo Balla daa mel ni mënoo koo fay de. yaa ngi kooku suma rakk la. kooku suma rakk la lu bëgguma ngeen. mais Balla lu tax mu bëgg la lu tax Balla bëgg la. lu ma bëgg benn bëgg ko raw. Balla yëpp maa ngi déggante ak moom. Balla waaw man su ma amee rek moom la. moom Balla Gaye ah ngir ne da koy dóor Balla Gaye ku ko bëgg bëgg ma ku ko bañ bañ ma. lii nga wax waaw. ku ko bañ nga bañ ko. ku ko bañ ma bañ ko. ku ko bëgg. ma bëgg la kañ ngay takk ñaareel. yoon nekku si tegal foofu sa baaraam gin taj saytaanay ga moo taxi doo musa njool. aywa anglais tuuti. anglais woy cinq minutes anglais woy fine hmm. good six feet. waaw mooy lan six feet mooy lan. la distance. mooy six feet. mooy six feet pour feebar bi nag. ak lan six rek nga bëgg a dee combat jox la ngay def signature yow. waaw nooy wax ñu jox la. Balla Gaye ñëw na ni I don't care. waaw I don't care kay su ma waxul I don't care lan lay wax. ko kon. I don't care. koy wax I don't care. ku pare rek pare naa I don't care. waxal wax waxi Batika du nga jël na glace na nga ko bàyyi. wuli sa jël na Adama Diouf la am man daal maa yëf ku ñëw baax na. cey Tarabexa kooku l'espagnol la de. wuy ma waa 116 ñëpp maa leen gën Al Ousseynou Pala Sam sa ah. airport bi waddati bi de nga jaay ko suba moom xam <laughs> ma ko ma xalla tàmmu ma ko ma xalla ma ko dama ko may gis ma xamal la benn affaire booy yow nga man lu ma doon def ci lu baax war naa ko tax ndeysaan oh bul jooy billahi wallahi tallahi oh, lu ma doon def ci lu baax war naa ko yokk xamul tax non non man damaa dem Amérique ah. billahi wallahi taala bul jooy bul jooy bul yëkkati ma añ ma ca kaw oh, defal oh. may tranga bay ñëw ñëpp jóg. Oh, mais bul oh, jooy bul jooy. waaye ma faal boobu. bul jooy ñiy ba ñëpp ñu fay ñëw ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant al Ousseynou place am. ña fay fréquenté yëpp maa leen gërëm dinaa wut liste après ñoom ñëpp naan tudd ñoom coxo sama rakk ñi nag afiya mënu ma ko fay daal maa ngi koy suba may woo ah, dafa am benn affaire bu ndaw empêche kon suba booy dem ci Balla ñu ñu nag ñu woo de nag ñu doo ko non nag seen yóbbante leen Mor jox waaw da ngeen ci koy jël si ah, léegi dinaa non da ngeen may may ndaw dama sonn rak Mor Ndiaye daal yóbbante ngeen ci jot waaye directeur ñu koy wax moo Ndiaye moo moo Ndiaye directeur. sànq bi ngay commencé dama laa laaj buuse mais waxoon nga ma jox na la benn sànq. sama doom la. waaw bi. xam nga rek. ndeysaan sama doom la waaw may na la dara may na la dara de. may na la dara de ñoom dégg naa wutal na la liggéey foofu sax nag ndax. kan koo naa wutal na ma liggéey na ma bul ma taxaw wax waaye. ah waxu dégg dama koo dégg de. bàyyi wax waaye. foofu bul tàng waaw bu la ma tax gërëm naa ñëpp sant naa dem naa ci jàmm ñëwaat ci jàmm kañ ngay dellu demaat fekk ñëwaat sama jaboot fekk leen ci jàmm ana soxna si mu ngi géejawaay mi ngi fi ñëpp maa leen ziar ñëpp namm na la de xanaa mu ndaw waaw sama doom sama am dellu question soxna si de namm na la xanaa da woon kay yëpp kan laa yor. sa genn woor woyu ma. waa Amérique gépp daa woor la maa leen aw ma seen fay ku ma tudd seen tur. non Alioune woor. da nga dafa woor bi ma demee moo Ndiaye. c'est sûr que da ngaa wooroon di nga nekk Amérique. ak jabar ji maa ngi koy gërëm di ko sant jabar ji. Leeru jabaru moo Ndiaye maa ngi koy gërëm. li nga nekk Amérique da ngaa woor. barki Cheikh Ahmadou Bamba. bi loolu nga wax soxna sang lay seetaan de. ba ma nekkee Amérique ba ma jógee ba ma nekkee Amérique ba ñëw. waaw da ngaa ma raayu tegoo dara tegu ndax xam nga tax. waaw man kilifa laa. foonu ma. raayu ma tegu ma ndax man kilifa laa am na yoo xam dama koy jomb te dëkk soo fay dem di fa doog dem ñun dañu ñuy dee ay mag dañuy dee ay kilifa dañuy. maanaam bu fa. Eh, dem naa fa nag ba jóge fa. foonu ma teguma ma tegu ma loxo alhamdulilah ñëwaat naa ci jàmm. kon daal soxna si rek